mbokku Sénégal yéen ñi ñu seetaan tey ñoo ñu salle de vente ñu salle de vente ci avenue Lamine Gueye salaam ak soxna Mbow moo ko mën di ñu seetaan tey ñoo ñuy ci fii ñuy woowee marché Alizé non marché euh, salle de vente ci Sandaga dans le cadre programme euh, Jokko ak askan wi étant donné que gars ñu tere. dox mbokk ñu ne tey moom defatuñu lu ñuy wooye dox mbokk mais dañuy def lu ñu wooye jokkoog ak askan wi mooy lan mooy dañuy wàcc ci place publique yi wàcc ci marché yi déglu askan wi lu ñu war a mën a wax ñu mun ko dégg ba pare mun leen indil lool noonu comme programme tey courage surtout am am ngor nañ seen bopp ñuñitagginaaw ëllëg foo nekk dinañ fa nekk yow la affaire bi yow la ñun kuy wax dëgg la ñu àndal yëpp a ngi sa ginnaaw jàppal na nit ñëpp seen bëgg Sénégal kii moo yor fi nawet pour nga xam nawet dafa jóg. boo wootee sa courage ak sa franchise lañ la bëggee. loo woote mu ngi fa. ñii sax war nañoo xam loolu. ñun daal ñun daal ñu ngi ci yow tey. ndax yéen a bëgg a dagg. waaw dañoo sonn de dañoo noot. tey yow la ñuy àndal tey yow la ñuy àndal ëllëg ndax i ko am wax dëgg yàlla am nañ ci yéen yaakaar am nañ ci yéen confiance te duñ leen wax na yéen itam bu leen nu wax loolu kese lañ leen di dénk alors ba ñu dégloo benn responsable ci marché de vente Voilà ça nous le maire Barthélémy médias accompagné donc euh, de Yewwi Askan plateau et d'autres militants

ñi nag am nañ fa ay responsable kii moo fi toogal Pastef kii moo fi toogal taxaw Dakar donc suñu ay ndaw lañ ñëw nañ fi tey ëllëg tam dina am yeneen yu ñuy yeggale ñoom dinañ ñëw si yéen wax leen loolu daal moo am solo. ñoo ngi koy rafetlu vraiment ndax xaj yow ñuy sant si kii moom Sénégal yëpp xam na comme xam naa seen engagement ci réew mi xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi tam te ñun moom vraiment kenn defal nga xam ne kenn yàqal dara ndax li ñu war a nekk ñun ñoo ngi ci suñu xëyee ñoo ngi góor suñu waar ñu ngi dimbali fii suñu jàppale te fii tam xam nañ say booy yi fi nekk xam nañ seen gars yi fi nekk dem suñu xam dégloo dégloo dégloo soo xoolee fii am nañu benn organisation je ànd ak sa boîte je suis le président moom monsieur le secrétaire général ุสยุมิสมนุมาไปมาไปแต่ทวายคำนึงอะไรครับยัดนเสด็จสิคนทำมันเองครับไม่ค้องเสด็จทำหนึ่งหลวงพ่อแต่ยืนมั่วจิตแม่เด็ไปไปผมเรียกคนอื่นคุณท่านได้มาอยู่ยุค้ไดมาอยู่ในตอนนี้ยังไม่ได้ฟังเพียงเท่าไหรไปแล้วใครจะยืนใครจะยืนฟิลอันนี้กว่าเดียวฟิล์่กว่าเดียวยืนทำ jaajëf jaajëf jaajëf. même le maire actuel de Fala bi ñu ngi koy dimbali fii ñu ngi koy jàppale fii ndax am na loolu yëpp tam maire ko war a ñu koy xam nga ñun ñu plateau lañ ndax tam bu nekk soo fa dee xëy 365 jours fi dee xëy fi ngay liggéey itam kon fa nga dëkk fa nga kon daal moom daal jàpp ñu fi ñu mën jàpp fi nag liggéey nekk ñu ko seen bopp nekk tam ñoo fi nekk oui ma loolu mii moo tax ñu gën laa bëgg yàlla na li ngay wut yàlla na ci yàlla jotale. amiin amiin vraiment kontaan nañ ci yow bu baax yàlla yàlla jàppale la. amiin kontaan nu mu sa ginnaaw. lu jëm ci commerce moom daf ci am programme boo xam ne ñun dañ ci déggoo ñun dañu ñëw pour jàppale ñu programme tënku na ci loolu dina yeneen jotaay GIE boobu ñu mën a ñëw waxtaan vraiment ñu bind ko dafa am dafa am soo soo xool il y a six ans ci ginnaaw Ousmane Sonko ñu ne fu fekk ñu jëlu ko dara am na vidéo yi am fi ak moom bi ko baara saw suñu benn collègue bi ko baara naa ko jàpp nañu ci kanam jàpp nañu ci kanam tuuti jàpp nañu ci kanam tuuti Sénégal yëpp ngeen soxla jàpp nañu dem Macky Sall li mu def li mu def ñu def si kaw ñu si dem vidéo yaa ngi ko def kon nit ñi yàgg nañu ab gëm nañu li gëm dëgg te tam développement Sénégal ñor nañu ñor nañu ñor nañu ñor nañu yàlla daal yàlla ande incha allah mën a mën a seq parce que li ñu bëgg mooy liggéey Dakar Dakar ñu ngi Dakar daanaka am mooy virtuel voilà mais amut mooy mel ni lu am mooy gox goxam lu ñu bëgg mooy ku ñu bëgg jàppale ci mairie Dakar Sénégal dañuy jàppale ci mairie ci bépp mairie mu nekk Dakar parce que acte trois bi te may maintenant mairie bu nekk bu nekk mairie bu mënal boppam ak am ay sañ-sañ boppam. soo amee mairie Dakar mooy comme président bu ngay fal. te doo ko jox majorité assemblée. muy liggéey day métti. ñun waxuñu te du fi am plateau basse wante dañu am yéene parce que plateau lu moo am ci ay moyens tey plateau na woon na toll tey ci beneen niveau parce que tey Sénégal à part mairie Dakar amul beneen mairie du fi am tey quatorze milliards ci budget man de ama quatorze milliards wante de euh, am naa yaakaar waa maire moo say na namu ñu am maire bu mel ni maire kon nag bu ñu jàppale ñu jàppale suñu ay nit tamit am nañu yaakaar am nañu yéene liggéeyal plateau Linguère Dakar loolu yëpp ci kaw a a wax ngeen dégg yéen tamit ngeen mën a wax ñun moom on est disponible ñun moom disponible lañ ci képp ku na la teeru gis na la déglu sa waxee ñu am programme itam invité ñu itam suñu amee temps bi su ko mayee dana ñëw toog xale Moustapha bi mais président loo ko jàppale doyul président ñun nag kii ñu xam la de kii tax ñu bëgg la voilà kii moom loo ko jàppale kii moom kii moom la trop waaw mënoo bëgg la aussi tam ah, waaw mënoo ñu xam la mënoo ñu bëgg la seen xamante bu ñu 10 ans fa nga xamante ba mu ko fay wallaahi kii mënoo koo fay ah, kii moom kii moom bu toj na fii ci banque bi. moom baat na ko voilà loo koy jàppoon na 100 pour 100. comme ni ngeen ko gisee Barthélémy Diaz jot na échange def benn échange plutôt bu solo ak responsable marché salle de vente. continuer suñu parcours parce que comme ni nga ko waxee rek tey ñoo ñu fii ci Sandaga jiitoo ko ci Pak Lambay salle de war a wàcc après Petersen benn bopp la Sénégal Diaz Sénégal Ndiaye Sénégal Fall Sénégal kenn mënu ko ñaar voilà donc euh, wax bi mooy liggéey rek am solo actuellement on

Ousmane Canada, voilà 5 candidats plutôt muy Barthélémy Dias. l'idéal pour Dakar. nga ne lan l'idéal pour Dakar. ah gis ngeen ko lulu lu ñu wax ñoom ñoo ko waxal seen bopp. Salu

inşallah. Öğretmen yakan bakmaz inşallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. jokkoo askan wi comme que dañuy dox dañuy dem askan wi askan wi d'une manière très spontanée déglu pour après mun ci indi solution à travers notre programme.

waaw dañ ko soxla. soxla bi soxla bi. dañ ko soxla waaw dañ ko soxla waaw dañ ko soxla. jëmm la nga ngir yàlla ba baax a fee ñaari weer nga ñu ko soxla. Samsung bi boo ci gàllankoor maam Thierno ñu ngi fi xaalis voilà kon naa bis ba tey ñu ngi lay xaar moom. bu soobee yàlla ñu ngi dem ñu ngi dem bu soobee yàlla. Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc euh, là on est au centre-ville di dox ànd ak le maire Barthélémy Diaz ay bëgg ñaar sëkk bu ko soog maa ngi koy day compliqué waaw fit loolu yombul. comme ngeen ko gisee ñooñu jégalu parce que dañoo am problème ak yenn équipement yi donc voilà ba léegi ñooñu fii ci plateau donc salle de vente ànd ak le maire Barthélémy Diaz voilà Dakar moom comme ni ko waxee rek Dakar Dakar ñëpp la Dakar Sénégalais yëpp ko voilà kenn wax waxu waaso wax wala wax te nag dañ ciy dolli tey de wax dëgg cent plus de cent jaas bu amoon ci biir réew mi tamit wax dëgg moom kon boobaa mu garaaw parce que sénégalais yi ci boppam ñoo bëggal Barthélémy Dias seen bopp. ah. lii mooy coalition ànd yeewi askan. waaw yeewi askan yaa ngi ci biir. noo leen def soo amee. ñu sant baax na. yàlla baax na dina baax soppee gars yi jàpp si. lépp dina baax incha allah. lépp lépp nag nga dem sax ci élection ñu gën a utal waxtaan yi. amul benn incha allah. di nuyoo la dégg nga waay. nuyoo la père la. appareil. Thank you. mais bu leen fàtte suñu maire Pape Diouf Pape Diouf mooy suñu maire. Dakar Plateau grand Pape Diouf. dafa leer. mooy jàmmaarloog Alioune Ndoye Dakar Plateau bu leen tànnee leen grand Pape Diouf. yéen askan bi. dafa leer. ça va bien. jàmm jàmm la maire bi waaw maire bi. Ah, maa ngi fon sax sax maa ngi fon ak ñoom Ismaël waaw waaw. dëgg la dëgg la wax nga dëgg wax nga dëgg maa ngi coono. ah oui dëgg la effectivement dëgg la dëgg la. na ngeen def fi ngeen nekk ah. ok. dëgg la. dëgg dëgg yàlla yàlla xam loolu. waaw macha allah. waaw incha allah. waaw mais na ngeen ko jàppee tamit. même même bi nga jox yi mag awla bi gis naa la. man nga jox la awla bi man gis naa la. ah ah xam naa jërëjëf jërëjëf Diagne. macha allah.

ak boutique place ak place table ak table boulangerie du ñu bàyyi dara ñooñu fii ci plateau ànd ak le maire Barthélémy Dias donc jëm ci distribution flyers ñu mën a xàmmee suñu suñu logo. xam nga lu olof Njaay di woowee dëkk ci dëkk bi boole ko liggéey dëkk bi loolu moo ëpp solo ba nga dëkk ci dëkk bi te amoo benn njëriñ ci dëkk bi. lu mu baax ngeen ñeer ko lu mu baax ngeen lu mu baax ngeen ko. Ah, ñu ngi fi yow tey bu suba fi ñu ñëw lii la doon lal yow la doon yow ñu ngi la doon ñu daal ñu daal dama bëgg dellu si waat fii ñu gën a xóotal waxtaan parce que ñaari yoon ngeen di voté Dakar ñaari yoon da ngeen di voté bu plateau plateau tamit bu mairie fii la Dakar voté bu mairie muy baat lemi jaar muy moom mii kii nag bëgg a jàppale ndamal Sénégal lépp la moom Sénégal yëpp Sénégal bu ñu toppee rek lu ñu bëgg fu mu méttee lu ne yaa ngi ñu naan jëm. yëkkatil caméra bi gën a. waaw yëkkatil caméra bi gën a. ne ndax nag sëriñ loolu moom bu fayal ko sumaan kon ndax am réew ak sëriñ bu baax chaque jour yaa ngi fayal ko ndax askan kon loolu dina tax ñu ànd yow benn carte nga man benn carte la gàcce nga la même citoyen mais bu ngeen demee yàlla la leen yàlla ñu fayal ko ndax askan man bu fekkoon ne man nekkul woon sama xol du ma taxaw di wax. wallaahi ñaanoo lii lii laa doon ñaan yàlla suñu borom boo déggee kër yi yal na yàlla suñu borom may yal na yàlla suñu borom may ndax kontaan nañu ko. bisa

alors ñoo ñu jéggalu bu baax ci problème yi ñu amoon voilà donc euh, outil bi ñuy defee live moo xawoon can là on va le maire Barthélémy Diaz moom mi nekk ci yoonu dox mbokk bi ci yoonu jokk askan wi après mun ci apporter ay solution à travers de programme qu'on leur proposera avez pu le constater, nous faisons le tour des boutiques, des magasins établis du plateau. Nous sommes présentement au marché salle de vente. Et monsieur le, maire Barthélémy Gaz c'est à ce qu'on appelle donc une distribution de flyers pour montrer nos logos aux populations du plateau, aux commerçants de salle de vente. fépp la ñuy dund waxtaan ak nit ñi fépp ñu xeebuñu kenn lànk na ñu ko may léegi nag par force bopp ak seen biir mën dara monsieur le maire Pape Diouf mu ngi noonu ànd ak xaritam ak wóllare muy monsieur le maire de Dakar Barthélémy Dias incha allahu taala comme ni ngeen ko gis alors vers l'essentiel comme ni ñu koy waxee rek xeebuñu kenn par boutique. grand place par grand place. tablier par tablier. nga wax ak sénégalais yi seen làmmiñ suñu nopp ñu mun leen déglu bu baax ñu mun ñu indil seen mbëbët ñu war ci mën a indi ay solution à travers un programme.

Thank you. alors ba léegi ñooñu ci salle de vente boutique par boutique grand place par grand place fas yéene askan wi comme ni mu ko waxee ñu bàyyi dara xeebu kenn donc Sénégal benn bopp la commerçant yi nekk nañ nit yoo xamante lu ñuy dugal ci économie Sénégal kenn mënu ko laam-laame ba pare aussi tamit fu ñu nekk nii muy plateau ñëpp xam nañ ne plateau mooy Sandaga ñëpp xam nañ plateau mooy salle de ñëpp xam nañ plateau mooy Pack Lambaye moo tax tey ñu fas yéene ñëw fii ci plateau fas yéene waxtaan ak commerçant yi mën a déglu seen yi attente pour après mun ci apporter ay solution Anda ak aussi notre candidat au plateau tudd Pape Mamadou Diouf mooy monsieur social l'homme du consensus parce que ku ko déggul moom ku ko xamul moom dégg mooy ni habillé en bleu s'appelle Pape Mamadou Diouf de notre plat de notre candidat au plateau ànd frère am Barthélémy président bu ñuy fal rek nga dugg assemblée ci assemblée bi liggéey day nekk bu ñu bëgg gaayam ñu jàppale ci Dakar nga jàppale ñu tamit ci gox gox maanaam réew mi bari na jafe-jafe te soxla yi bari na it yi bari na te dara fa ñu kon kon mën a defar réew rek la ñu bëgg kon yàlla na yàlla gën a jàpp amiin yàlla na yàlla defal jàpp ba li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ñu leen jàppale di leen taxaw inshallah allah jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf ko ji loolu seet na xol noonu lañ koy toppee maison par maison maanaam leen askan wi mooy mën a wax ak askan bi yëpp sans discrimination voilà donc euh, ñooñu ba léegi salle de vente ànd ak le maire Barthélémy Diaz ak njabootu Yewwi Askan Wi Macky Sall li mu xam mooy doole ji mu jaay mu am ku mel ne moom wala mu mel ne moom dinañ jaay doole am naa yaakaar si yow wóolare gu ñu bokk soo ko jàppee mën nga jàpp Pape Diouf nag ana Pape Diouf mii laa lay wax mooy jongonte ak Aliou te man boobu laa dëkk comme yéen maa ngi dëkk Lambaay inshallah jërëjëf merci beaucoup bat ñu kontaan nañu kontaan nañu jërëjëf jërëjëf jërëjëf vraiment kontaan nañu dina baax dina baax inshallah góorgóorlu lépp wallaay baax a baax lépp dina ñëw ceew incha allah góorgóorlu incha allah lépp dina ñëw ceew bu soobee yàlla jërëjëf jërëjëf dinaa woo bool bool yëpp bu soobee yàlla mu ànd incha allah ñëpp waaw bu soobee yàlla amul benn problème jërëjëf ah, jërëjëf waxtaan yi wax wax wax bi rafet na Barthélémy Dias Barthélémy Diasu Sénégal la Barthélémy Dias Bawol Bawol yi la Barthélémy Dias Ajoor Ajoor yi la Barthélémy Dias Saalum Saalum yi la Bart Barthélémy Dias aussi Ndar Ndar yi la Barthélémy Dias daal Diasu Sénégal la. aywa aywa aywa aywa ñu wàcc naar fas yéene continuer euh, jokkook askan wi. donc Belek Dionifi du plateau accompagné du maire Pape Diouf donc le candidat de Yewi Askanui au plateau Jangan jam mereka. déggee Pak Lambaye ñii ñooy Pak Lambaye boo déggee ñu naan salle ñii ñooy salle de parce que ñii bañ fii nekk kenn nekku fi donc tey lépp lu ñu war a mën a wax lu jëm fii day nekk loo xam lu légitime la parce que ñoo fi nekkoon ba dara dul dara donc c'est normal que le maire Barthélémy Dias ñëw fii waxtaan ak déglu seen mbëbët pour après mun ci indi ay par rapport au programme wala à travers le programme bu leen war a proposer jërë ngeen jëf saafonte ak askan wi bañ ci tek barrière sen nop sen sen gemin suñu nop voilà ni lañu xaar ci leader mooy leader bu ñamee askanam wara bu mën a dugg ci bir askanam mëna waxtaan ak ñoom

ngeen ko gisee ndax Télémédia benn boutique grand place par grand place tablier par tablier commerce par commerce fas yéene wax ak ñëpp élection yi le 23 janvier ñaan yàlla yàlla na yàlla def lu gën ci Dakar amin yàlla na yàlla def lu gën ci ñun yàlla na jàmm sax bi Dakar ak Sénégal muy nag mooy papa ci mbokk yi bi taxaw place damay bu Dakar mais damay fan gaañ yi nga leen dama bëgg a jàpp ci Dakar mooy comme ku bëgg a jàppale président dama bëgg président te dama bëgg assemblée bu mu jógee day jafe donc man nag bu ma xas leen fi nekk am na ma xam mooy soppee junni leen wax mu programme la yem ci wax bi kii moom yàgg na ci conseil municipal en 96 ba tey mi ngi conseil municipal ci Dakar Plateau am na na na pas-pas ak cofeel bu ci des rek damay ñaan yàlla yàlla may ñu mën a dellu siwaat ci campagne bi ñu mën a gën a xóotal waxtaan ñu mën a wax ngeen dégg ñun tamit ngeen tamit di gërëm leen sant bu baax a baax. nañ si delluwaat gën le maire Barthélémy Diaz accompagné de notre candidat au plateau monsieur Pape Mamadou Diouf fas boutique par boutique grand place par grand place tablier par tablier mën a à askan Mas... Não, não, deixa eu aqui um pouquinho. não. Não, não, não. Não, não, não élément Seydina Issa Laye Samb bi yaay fi bàyyi suba vingt heures yow tout aussi bien parce que ñun loolu lañ jóg du yow man maa la dugal <laughs> lan laa wax acca acca ñëpp ñi waaw na dem na dem benn heure yow inshallah amal jàmm yow jël na mo jël mo ñu ñu na yàlla amin amin amin amin amin jëm ginnaaw yaa jëm waay yaa yëpp gaa yi gaa yi. non déet damay bañ xam nga moom gaa yi dañu may mere quoi. dina baax incha allah incha allah yàlla yàlla kontaan yàlla yàlla kontaan. waaye jërë ngeen jëf macha allah macha allah macha allah. amiin. ah monsieur le maire ngi. incha allah. jërëjëf. ayca. na ngeen def. yaa ngi jaar. yaa fi ne la yaa fi ne. yaa fi ne la yaa fi ne. Yàlla may ndam pare leen carte yi waaw noonu la demee pare leen carte yi carte yi ñëpp solo carte yi ñëpp solo. waaw d'accord naa la jël.

yoon yi bàyyi leen yoon yi bàyyi leen yoon Sénégal la kidnap wante comme fulla le jaay daxaar lu ci ci dess des inshallah dañ joxonté loxo te gëm yàlla moo am solo parce que Macky Sall dinañ ko fi jëlé par ni ou par naa dafa naa fekk nag mu neexul té bëggo dégg-dégg so dégg lu dégg di gis dégg man de sama dégg la lay wax sama télé heure bu heure bo xamné na mom taxaw na ci man du ma koy sàtt man dama ko bëgg a sax lu bokk ci parce que daf ñoo ray du nit ku baax du nit ku baax yàgg na ko am am fulla dëggu nit ku soxor la nit ku soxor la amul benn yërëmande ci doomu aadama amul benn yërëmande ci Sénégal te élection bi tax mu am solo na ko ñëpp jàppe ni premier tour donc fii jaar ne wane na Macky Sall te troisième mandat rek Macky Sall

def ko <laughs> 哎，你给我注意点嘛！哦。 sonn si affaire yi te ñoom ñëpp ñu ngi koy jàppale. macha allah waaw moom vraiment a Camara la moom mooy euh, président wu communauté bi moom doomam la vraiment musul politique na mais bi ñu ñëwee wax ko dañu bëgg nga dugg ci liste bi dafa d' accord dugg ci liste bi ba pare il fait part de la figuration mi ngi wàcc si terrain bi di wax ak commune parce que plateau boo ko xamee. bi nga xam ne dafa am ay communauté la communauté libanaise la communauté bambara munoo def dara te boolewuloon ak la communauté guinéenne la communauté catholique donc ñun noonu la ñu investir ñëpp ñoo xam ne dañ fi tekki dara parce que dañ ne dëkk bi ñu fi fekk baax ak ñu fi baax fekk ñoo ko moom affaire bi lébu yi ñoo ñu yaatal mais dafa nekk léegi une grande famille bu xamul rek mooy wax leneen ñun nag loolu dañ ko def en réalité à travers notre liste moo tax ñu leen di gërëm di leen sant xamal ne Barth mi moom au niveau du département de Dakar ñun moom lañ fi te moom moo war a tiire affaire bi jëm ci kaw waaw ñun ñu nekk au niveau du donc lu ñu liggéey rek ñu nag mom ndox bu tang la ak suuf and naan wala and tu donc ñun ñep ben la. dañuy naan mo euh, jërëjëf la nañu voté nañ ko voté moom si commune bi voté Ba si ville non dañuy voté Ba si ville voté Ba ñëw si commune bi donc ñu xamee noonu ñun ñëpp da ngeen jàpp si bu baax fii am na seen benn doom Lamine Keita investi la moom it am na Amadou Boiré investir la moom it ak grand photo donc am nañ trois personnes yu investir. ci communauté ay jigéen si communauté bi. te ñëpp ñu ngi siy jàpp. tey ñoom Issa comme la représenté. donc ñu bëgg ngeen jàppee woon ngeen jàpp si def si seen kattan def si lépp. am na ndam incha allah. nii ay gars Plateau yëpp ñu ngi nii gis nga leen ay. jàmbaar lañ nangoo liggéey suñuy ganaar ak ñoonu yar donc nañ jàpp ne fii moom mokk na quoi dañuy def formalité nii rek ñoo nuyoo waaw avant kii moo nekk fii ci beneen magasin bi ci ginnaaw. am na beneen magasin bi ak nijaayam wala Pape tey nijaay bi ñëw na. oui. c'est que ay si affaire yi. Eh, wala Pape. moom tam seen kii ay. xam naa dina am yeneen occasion ñu gën a ñëw ñu gën a yaatal. parce que moom dafa am yéene ci dëkk bi. yéene boobu tam il faut ñu xamal leen dafa am programme mais loolu tey du si xaj dañu ñëw rek pour. dox mbokk saafonte nuyonte incha allah beneen yoon dinañ ñëw ci anam bu gën a yaatu bu gën a toog waxtaan bu leen ko fàtte si ñaan bu leen ñu fàtte tamit si ñaan moom chaque jour day xeex pour yéen ni jaay Pape Diouf day xeex pour Pape chaque mo wàccee mu woo jaa ngi jàpp ci liggéey bi ah, xoolal maîtresse maîtresse maîtresse non ñi ah, ñoom dañoo baax ah. dëgg la waaw dëgg la. Pape Diouf suñu mbokku lambay la. waaw loolu dëgg la. suñu mbokku lambay la day la jàppale su leen bopp. moo tax ma ñëw di témoigner. ñun plateau gi la ñuy wotee. te ñun Pape Diouf la ñuy jàppale. yow nag dañ laa gëm ndax tu es constant. ba ñu la xamee ba tey sa waxi daa kon nag nit ñi bëgg nañ la nit bëgg sax xamoo ko yow. ñëpp la bëgg ci la kontaan nañ nag ci yow. kenn wax na ko tontu benn bàyyi la sa Le papa de Dakar. billaahi wallaahi li ngi sa ginnaaw ci kaw ci kanam bu soobee yàlla def le baba de Dakar day baax inshallah kontaan si yow yaa ngi ni en direct ndeysaan ndeysaan lii dafa rafet dafa nice Sadio Faye dafa sopp waaw wallaahi billaahi ci kaw ci kanam rek Sadio Faye juróom ñaari ko yu dina génn yu ko dina génn waaw waaw mi ngi noonu xoolal lii non, tu Ok, merci beaucoup. <laughs> naa fa ñëw. incha allah. jël nañ numéro monsieur. wala nga bu génn bu dajeeg ñoom quoi. merci beaucoup. saa jël sa numéro WhatsApp ci télévision mais dama la jot numéro. ci li nga doon def man su prof bi taxaw sa wet jàppale ci lépp la yàlla na yàlla jàppale la gis nga Macky Sall bu ñu def bu ñu def élection nii rek par hasard laa tombé wax ko loolu moo alaawal mais rëcc naa ci lu bëri waaye yow am nañu ci yaakaar lan na la yàlla jàppale te yàlla dina la jàppale ci seen Tuuba Thank you. waaw yow lañ jëm. solo ay yére yu mar. du dara lii nag jàngi bu baax. du dara lii moom. ñoom nee nañ dañoo bëgg a waaw waaw xoolal xale ak Barth. may leen ñu may leen ñu mën a jël photo waay. allez booy taxaw. c'est très symbolique par rapport aux couleurs ñoom yi ñu sol. merci beaucoup. seen école bee gën a tilim biir plateau. macha allah ak Abbé Pierre ah. Abbé Pierre gën a tilim biir plateau. loolu dëgg la kontaan ngeen ah. loolu yaa koy defar. Yeah, yeah, yeah. Venle feliz. Osman. Dama si kanam si kanam. Baaxum jaar si kanam. Wural wural nga dem si kanam. Osman, bàyyi ma. non moom fay na est-ce que dañ fa mën a mu bëggoon ñu woo ko mu ñëw ñu. nañ taxaw ci kii bi ñu woo ko du ñu. mais ndam rek ndam rek ndam rek. mon frère. wala yàlla na. Maju, Thank you. Bilal Batu, Bilal Thank you.

yeeg day sàmm moom waa ji moom gaañ na ko bëgg seen bopp. nañ gaaw nañ gaaw nañ gaaw nañ gaaw. avancé la avancé la avancé la. dama ci kanam. waaw bis dama ci kanam. voilà. waaw dëgg la man dëgg la man dëgg la. waaw waaw. incha allah.

Le président de tous les Maliens du Sénégal. waaw waaw kon da ngeen def waaw. naka waa kër gi naka liggéey am nañ mbégte lool am nañ mbégte lool si dëkk bi. waaw dañuy xamal nag kii ñu nag moom ñoo dëkkandoo plateau màggandoo ak moom moom musul nangu politique moom musul nangu politique mais ren dafa ñëw ne day dugg suñu liste ñun ñoo ko dugal suñu liste pour mu toogal fa la communauté bambara yéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax xam nañ ne li ngeen waroon def ci askan bi yëpp def ngeen ko jur ngeen ñu fi ngeen ñu war a jot na nag ñun tam ñu jël suñu responsabilité moo tax ñu ànd ak moom pour fas yéene ak Barthélémy Dias ñu liggéey plateau liggéey Dakar waaw ngeen jàpp bu baax nga defal ni ñaan bu baax a baax waaw tàllal loxo yi nga ñaanal confiance. Il est fabuleux. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'abord, je vais da Allah affaire bi fekk booy yi am na solo vraiment nekkal fi nga xel mooy dégg te xol tamit day dégg te dañuy yëg yéene bi quoi yàlla na yàlla mat amiin amiin oui on est fier on est fier on est fier on est fier

yaay ki lan yaay ki 800 yaa ma raw man amoon naa fa ay 2000 ah Stop, ana security bi, oh. body, huh? Back with it, back it. Really? Thank you. Ah, macha allah. waaw. ñu suñuy maire ngi nii Dakar Plateau. non déglu ma rek da nga may déglu. déglu ma bu baax may wax ak yow. Dakar Plateau kii la. waaw lii la Dakar moom la. jeex na. ay kii maa ko bëgg. daa kaa bu soobee maa ko bëgg moo la raw moo la raw. anam bu xale maire monsieur le maire wuyu. waaw xale maire. maman na ngeen def. ñun ñooy sa bàjjen. ñooy sa ñooy cousine Aminata Sono wante ñun sa bàjjen lañu doon. yow xale maire. xale maire. ñu ñaanal la yàlla na yàlla may ndam la macha allah. amiin. yéen moom la ñu wax na lépp na lépp allez maire. yal na la yàlla may ndam. amiin jërëjëf. gërëm rek mooy def li nga def yow. ay si ginnaaw ko noonu rek laa la si yaay gëm ne suñu carte ba ñoo ko yor ñu ngi nii suñu poos dégg ngeen ok kontaan nañu waaw merci yaa soo nekk affaire boobu la gaaw maire bi maire moo soxla sa maire. maa ngi yow rek ba korom may dee. incha allah man dama bëgg a jàmbaar te dama ànd ak koy daw. dafa leer ko merci. nang ah. nang nang. Thank you. meera ngoog meilleur maire maire kaw maire l'est maire nord maire sud yal na la yàlla may ndam nga doon président yow la ñuy wër waaw kay

vai bên đường. Bắt. Gracias. baax a baax macha allah macha allah Pape Diouf wóor na Barthélémy nekk bu tëddee la nelaw Dakar moo ko moom waaw ndax ñu ci gannaawam ñu ngi ci gannaawam waaw looloo am ñun moom la ñuy war ba fajar ñu tëdd nelaw jarul nga def campagne bu la neexee mën nga dem te gannaaw parce que ñun kii xam la ñuy fal. incha allah waaw ñun kii xam la ñuy fal. waaw waaw. Thank you. dem ak yaxara dem yàgg naa ànd ak yow saa man sa gannaaw. bii bi Ndoye plateau laa yoroo fi. ñi ñooy lébu Ndakaar yi doomu yaxara dem la mais. ñu am suñu maire bu baax la. yow la ñu woon yow la ñu woon yaa ko moom. xamal borom Tuubaa ñu yaakaar dañ def ñaan ci doy suñ Tuubaa nga taxaw dara mun laa taxaw incha allah da nga taxaw suñu képp ma ne ko góor ñaa ngi bougé wuñu mètre ba léegi dama asma Oh,